أنوارك الساتي وسر سر أسرارك التجليات الخرشي من تفجرت منه ينابه الحكم الإلهي ومحرفة من لدنه ورضي الله عن شيخنا التجاني خوص البرية مفتاح الولايات شيخ التجاني مصباح الدجونات ginaaw bañu santé yàlla julli ci abou bassar di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen di nuyu bu baax ta di leen ziyara di baalu ak ñëpp di leen bal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole bal ci barke sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam yéen ñi nga xamne yéen ñi ñuy ci télévision bu am solo bi di Widish TV fa tabarakallah di leen ndokkeel ci wër wi nga xamne ويرو tedd la di zëhru ramadan ndax weer wi ci la alquran wàcc waaye weer wi تي gi gën ci guddi yi ci la ne muy laylatul xadar nga xamne mo gën junniy wër ndax yàlla borom bi wa tabaraka wa taala dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim inna anzalna fi laylatil xadar وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الظهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أتام الله الفجر yàlla borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala nee na guddig laylatul xadar moo gën ci guddi waaye malaaka yi dañuy wàcc ànd ak jibril alayhi salaatu wa salaam waaye ci ndiggalu borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala ci la ñuy wàccee te lool yépp ma ngi xew ci weer wi di weer wi nga xam ne weeru koor la kon nañ leen profito jaamu borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala comme ni ngeen ñu toppee nag ci jotaay yu xam-xam yu am solo yi nga xam ne ma ngi dotteeku fii ci kër gi tey nag dañoo war nar a waxtaanee loo xam ne lu am solo la muy al mawt muy dee ndax parce que léeg-léeg bo taxawé sétlu da nga nan lan la ndax bu njëkk bo déggaat ñu né diw déna ay eh, bala nga déggaat ku da dana yag lool waaye jamono tay ji dee comme wéñ ndax am na ñoo sax dañ nan yalla ngi ray waaye auto yi sax dañuy fa di ray légui ñom auto yi sax légui ay eh, ma ay eh, ki lañ <laughs> dañuy jël bakkan ndax parce que ci yàkkamti gi nga xamante ne yàkkamti nañ ko seen àddina moo ko waral nga xam ne tey jii ki nga xam ne yor na otoom tey nekk ci kaw tëli bi fa nga jëm boo defee ndànk rek danga fa àgg ndax parce que boo yàkkamtee yàqule la lay jural ñaata nit tey nga gis ñoo xam ne sànku nañ ci kaw tëli bi te ña leen sànk lan la seen moroomi doomu aadama ñoo leen sànk ngir lan ngir xol yoo xam ne xol yu xat yi nga xam ne moo nekk ci kaw tëli bi nga xam ne tey tëli bi fa tabaarakallaahu ñu ne ñoo ciy daje oto yaa ngi ci jakarta yaa ngi ci welo yaa ngi ci léegi ki nga xamante ne oto la yor na muñal ki nga xam ne yor na jakarta na ko muñal ndax parce que yoon bi yàggul waaye ki nga xam ne oto la yor tamit mboolem dóoru yi rek muñal leen ndax parce que deux roues ak oto bokkut ñaata nit a ci génn àddina léegi nii rek lañuy nettali ne ki nga xamante ne tey jii nee na dem na ba nga xamante ne wàcc na bay ndogu oto fekk ko fa jël ko ci kaw tali bi nga xam ne bopp bi moo toj xoolal loolu léegi sànkuñ doomi jàmbur kon nañ leen di def ndànk waaye tamit nag boroom jakarta yi tamit nañuy def ndànk ndax parce que loo xam ne deux roues la nga tegu ci kaw tali bi rek di tararay di dem fa tabaarakallaahu topp neexaay bi kese ba mujj la sànq ndax parce que boo xoolee sax bañ na ko ba marque jakarta yi liñ ci bind nga xamante ne defe naa bu ma juumut KTM lañ lañ ci bind bu ma juumul ndax nee bi nga xamantene ka bi limi muy signifié mooy kër ga mom bo xasse ba sa jakarta mom fenn rek kër ga nga jëm wala kër ga nga kese waye tee bi li signifié moy taliba ba ba nga jëm waye emu ba lu muy signifié moy margo ba ñett yi mom faaw bo départ da ci dem ben da nga dem kër ga wala nga dem taliba wala nga dem margo ba te margo ba la la ci yóbbu nak moy ñaka def ndank ñe ñaka def ndank yow ci digënté bo xamantene ne bu xat la nga né dooru rek la yor na fa jaar jàll bo fa jaaré gisuñ la auto tànce la nan ngay def ñaata nit ci génn adina bari na kon nañ leen yaatal xolli gëna a bu baaxa baax dié gogu nak dafa nek mbir mo xam bu doy war la ba nga xam gaay yi dañ ko muju sax faté muy dé ndax parce que ñu bari ñom gëm nañ dé dé mais dékki lañ gëmut ndax yàlla borom bi subhanahu wa tabaaraka wa taala lim wax du dañ yàlla neena dana len ray yéen ñep waye timit dana len dekkil yéen ñep benn par benn yow lo xamne yàlla bi mi bind diala la bind doga bind dundu ndax khalaqal mawt wal hayat diala la bind doga bind dundu mom yàlla borom bi subhanahu wa tabaaraka wa taala léegi dee googu nag faaw nga sóoraale ko di jëf-jëf joo xam ne jëf ju yiw la di jëf-jëf joo xam ne jëf ju sell la di jëf-jëf joo xam ne jëf ju baax la di sóoraale lan yàlla borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala innahu yaxlamul jëhra wa maa yaxfaa kon gaa yi nañ leen xalaat dee bu ñu xalaatul woon dee lu ñu neex la ñuy def waaye dee fii ak yaa ngi koy xalaat doo def lenn lu naqadi borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala ki nga xam ne doomu aadama la ñaari biir la am muy biiru boppam ak biir bàmmeel léegi sa biiru bopp bi nag yàlla borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala moom mi la sàkk indi la jamono dana la jox loo xam ne ngay lekk dana la jox loo xam ne moom ngay naan ndax lan wa ma min daabatin fi ardi ila ala allahi risquha yàllay wërsëgal ñëpp foo nekk yàlla borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala moo lay wërsëgal atta jën yi nga xam ne ñoo ngi ci biir ndox mi yàlla borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala moo leen wërsëgal dégg nga atta gaynde gi fa tabaarakallaahu ka leen wërsëgal kenn la yàlla borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala léegi nag déegoo nga xam ne sóoraale woo ko ma ngi ñëw boo ne yaa ngi daaw dee dee jóge fële di dajeeg yow kon nañ leen jàmm borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala kon bir bobu muy sa biru bop yalla borom bi mom mi la sak dana la jox la fa def mais nak benen bir bi moy lan moy bir bammel lo fa jëfut nak doo ko fa fekk léeg-léeg nga deg ñu naan serigne diw mo ñu yobbu nangam ak nangam ak nangam ay waxi neen la rek serigne bi na lay ci kot di la jaamuloo borom bi subhanahu wa tabaraka taala ndax borom mursid dafa wax lu am solo daf ne yasabu sayxan 'arifan mazaliki يقيه في طريقه المهالك يسكره الله إساره ويوصل العبد إلى المولى لول موي جيمي سيرين بولا غيسه نلا يالا نينا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم نينا بو نيكي يونو الكوني مو جيل لا تك لا تي يونو صراط المستقيم مي سيرين بو خامني رك لاي خول لو من دي ديف لو نخد يالا لجينتي وكو كوك دو سيرين كيرين لا نخ بولا لا نيول بوكو لا نيول jamono tay dina keur këriñ fi bari way serigne ci ñu neew lañ kon nak faaw nga nag nga jang nga mëna rañale ki serigne la nga mëna jang timi rañale ne kii këriñ la ndax parce que sëriñ a so rewul ki nga xamne sa poos lay xol ko du serigne mais ki nga xamne nak chaque jour nan la yalla ne na neena jappel xamne serigne ngi mais nak lool lan motax mëno ko rañale ñaka تويكت بني ون حياة بلا علم حياة زميمة والعلم بلا تقوى كلام مضيع ويكت بني أنا دندو أن تقم خم دندو نعني لا تقم خم يبقى بأخنا <clears throat> واي نك لتي جيتو موي خم خم بو خم نغا خم سا دين سا بو ياكو نغا خم نوي جامي بروم بي سبحانه وتعالى waye top banex adina top kom kom adina te bàyyi borom bi subhanahu wa taala fee déedéet waaye nee na nag xam-xam bobu nga xamne ne jaamu nga ko yalla neena na nek nekk xam-xam bo xamne nak na nekk xam-xam bo xamne ne xam-xam bo xamne xam-xam bu ngagne la waye xam-xam bobu nga xam timit na andak ragal yalla tey jii bëri na ay jafe-jafe yo gis ci jamono borom xam-xam bu regulul yàlla rek moko waral na parce que man na tukal jamono ko xamne amna xam-xam ba pare regulul borom bi subhanahu wa tabaraka wa taala ko mundu tukal aduna man na tukal àdduna kon nañ leen jël suñu xale yi yóbbu leen ci dara ja ñu jàngi alquran ndax nek na mbir mo xamne mbir mu am solo la bu alquran jido ci mom leneen lu mën di ñëw day yomb waye top banexi adina nga jël sa xale tay yóbbu ci français bi bañ ko yóbbu ci dara ja montage ci daara ji la waroon nañ jëkkee de yow koo xam ne loo soxla ci daara ja ngay dem ci boroom daara mu jox la dara pour nga raayoo ko pour doon dara nga wan ko ginnaaw nag léegi ci ki nga xamante ne sëriñ daara la loolu nag war nañ ko seetlu bàyyi ci xel bu baax a baax koo xam ne bu nit génnee àddina it sëriñ daara ba lañuy woo kenn du den demal woo monsieur nangam wala madame nangam déedéet sëriñ daara ba la ñuy woo mu jullee ko jàngal ko alquran léegi ñu bëgg a wan daara ginnaaw pour lan fiñ ko teg nañ leen xalaat dee di wattandi ko dee bu baax a baax. boo ngay fàtte fàttelu dee ndekete yoo dee mooy sa rotuwaay cër am nga ko ci de te danga ko jëli yow doomu adama bi kon xalaatal yàlla boo xalaatee yàlla doo fen booy fàttaliku yàlla doo jëw booy fàttaliku yàlla doo ràmbaaj booy fàttaliku yàlla doo ngistal yooyu yëpp doo koy def ndax yàlla borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala mi nekk ci sa xel ba fàttewoo ko sax mooy tax fii tey nga fii gis tey ñaata nit ñoo topp bànneex àddina jàpp nañ ne tey bu boo dee rek jeex na déedéet kama bada'akum ta'uuduun yàlla ko wax de nee na comme nit ñëwee noonu la ñuy delluwaatee ci moom ci moom borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala te amul ne tey kii day dee wala kii du dee ñëppay génn àddina amul kuy des ala kullu mawludin fala sakka annahu yusallimahu yaasal abi bu suub képp koo xamante ne judd na amul sikki ne dee ngi ñëw jox la loxo te bu la joxee loxo faa nga fay ko moo xam nag nga dund junniy at xoolal yonent yàlla nuux alayhi salaatu wasalaam nga xam ne dund na junniy at biñ ko laajee àddina nu mel nee na àddina dafa mel ni ki tey comme ci misaal nii boo xam ne dafa am salle de bain nga dugg ci ne bi rek continuer ci sàlle bi nee na àddina noonu la mel allahu akbar ci koo xam ne junni at la dund ñun nag ñu jël àddina yanu ko ba nga xam ne macha topp bànni xaaj na rek topp xale jigéen yi lu nekk ñu def te bañ a fàttaliku biir bàmmeel bañ a fàttaliku ne ñun kat danañ génn àddina waaye yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla laq yàlla nañu yàlla aar ci barkeb sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala moom dong nga fiy des moom rekk moom kott moom dong ndax moo ko wax kullu man alayha fanin wa yabqa wajha rabbika zil jalali wal ikram loo fi gis day jeex ba mooy jëmmi borom bi subhaanahu wa tabaaraka wa taala loo fi gis mu tooy day mujj a wow allahu akbar gaa yi nañ leen jaamu yàlla fàttali ko ne bisu dee ma ngi ñëw ci mboolem liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéey rek nañuy fàttaliku dee suñ mbokki commerce yi nga xam ne ay commerçant lañ nañuy fàttaliku dee bëri na ñoo xamante ne tey duñ peese lu mat boo jëndee kilo ñu peese la liibar ak genn waa liibar ak xaaju genn waa liibar ba pare nga wëlbatiku tey nga xam ne ci misaal benn produit bi ñuy jaay benn la xëy na sax mën nañoo bokk lañ ko jëndee waaye kii di jaay prix nangam kii di jaay prix nangam léegi ki nga xamante ne moo gën a néew prix kooku moom peeseem da dul mat léegi loolu est xaj na ci bàmmeel soble amul biir bàmmeel de walla ay ceeb ak yi déedéet biir bàmmeel moom boo defee lu ñaaw xam nga la la fay la la la fay wéttali xam nga ko yooyu yépp nag boo ko dul bàyyi xel lu la neex mën ngaa def. waye boy baye xel yalla borom bi subhanahu wa tabaaraka wa taala da nga xam fi nga xam ne fa ngay tek sa tank bu baakha a baax di ñaan yalla yalla nangu ñu suñu koor bepp jaamu yalla go xamne ne jaamu nañ ko yalla ci biir weeru koor yalla na ko yàlla nangu te bu ko nango yalla nako ko ful bu ko defé rek dana ñëwaat indilaat leen yeneen waxtaan yo xamne yu am solo la xamna ni dana leen indil ci muru koor nga xamne fa tabaarakallaahu ñan la war danañ ko indi macha allah waaye tamit danañ ko indi timit ben tem bo xamne bu am solo la muy actualité yit ci walu koor gi batay ndax parce que gis nañ ne ñu bari wori nañ yoy timit danañ ci indi ay leral bu baax wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. seen agence immobilière Kirtambe du Group leader dans l'habitat social ñu leen di may émission Jotayo xam-xam avec Kirtambe du Group. am leen ay téere yu wóor te xéewale